abaa munoo nekk ak doo wax caméraman baa ngi nii abaa du tey ëllëg démb ak bërki eh, wax sa digganteeg si njaboot gi wax ma rek ngay seedeel ci suñu papa sa hmm. papa eh, sa lépp ak eh, li nga xamante ni tey moom ngay dénk ku ko sopp ñeneen ñu féetewoo wax ji ñu ñu ngi dem ni ci armeer hmm. naan ci kanam rek mais métti na te dafa tiis te doom bu ñàkk wala xarit wala kenn hmm. Sénégal yëpp a ñàkk Papa Thione yaakaar naa ni pour waa Sénégal yëpp la donc ñi nga xam ne ñoom lay fekk yàlla yërëm leen yàlla yërëm ko moom ñi fi des yàlla bàyyi leen fi ñu gën fay yàgg quoi jaajëf. Euh, mi ngi ci yoon bi pour dem ca euh, armel yi Aba kenn wax si diggante moom ak euh, kii di Thione Seck diggante moom ak waali sekk voilà il fait partie de la famille ñoo ko ñoo ko ñoo ko ko defar ci lu bëri ñoo ko tette. Hmm? jaajëf. kon euh, euh, njabootu Cheikh Béthio bi tamit euh, gis nañ leen fii njabootu Cheikh Béthio yi gis ngeen ñoom ñëpp ñu ngi noonu kaay kaay kaay kaay kaay. voilà kon euh, di wax rek ne aba message bi nga xamante ni moom lay lancé ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di def naka sa noonu ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax ndaxte nit ñi dañu fee bari trop trop trop waaw te am na ñoo xam ne dañoo ñëw ci mbooloo gi ñu ngi profito di def naka sa noonu kon euh, nekk loo xam ne nii suñu xarit moo ñu ko dénk noonu. di Aba No Stress kon ñu bàyyi xel euh, ci loolu bu baax a baax a baax tey surveiller ku ci nekk rek na nga bàyyi xel ci loolu ndaxte euh, genre mbooloo yi moom lu ne ngay gis façon nit bu ne ngay gis waaw am ñoo xam ne dañuy ñëw di def na ko solo noonu gis ngeen ba tey waali moom mi ngi ci biir oto bi génnagul jumaa ji nga xam ne moo nekk ci ginnaaw fi mu doon jullee aljuma léegi tamit xam naa léegi koor bi agsi ndeysaan nekk lu tiis lu tiis lu tiis lu tiis nag am nga dëj sa mbokk wàcc liggéey sa jege ñaale ñu la koy jaalaat bu baax comme ni ma koy waxee rek ñi ñi xam rek lañu gis waaye am na ñoo xam ne xamuñu leen seeni mbokk ñu ngi ci ay ñu ngi ci tiis xëy na tiisu Wally Seck lañ gis xëy na dëju coon Seck la ñu gis